sama clôture la ma. mais constat daf nga le constat bii gën a grave mooy bii nekk fële sama kër dëkkandoo bi. daf nga le constat sama dëkkandoo bi yëgule ko. non am na ñu fay fanaan sax. fan ci ñu yelwaat Ngor. Ngor waaw. <laughs> loolu moom bëri na sama dëkkandoo xaritu président bi. te buntu këram kenn du fa toog de day di ñu dem si ñun suñu buntu kër laal fa seen i basang di xaar sarax bi. waaw jërëjëf ma ma comprendre man naa ko photo sax mais bon. comprendre comprendre comprendre li ma. comprendre li ma parce que ah, sarax yaa bari temps comprendre naa mais léegi sa buntu kër la fanaan pour xaar ko moom mu ñëw la fanaan parce que dañuy escorter dañuy escorter comme tu as dit euh, hôpital foofu moom boo fa rombee tout le hmm. temps tu vois que y qui sont qui sont là-bas mais dañuy dem ba dañuy kii tàngane di ñu tegu ci kaw borom jaay euh, borom kuy réparer ay pneu te yow amuloo ci solution <laughs> bo <laughs> Sénégal boo xëy ne na soxor <laughs> léegi <laughs> que du yàq du du leen yàqal aussi. mais bien sûr ñu ah, je sais pas ñun bon à l'intérieur comme ce que <laughs> ci poubelle ñu nettoyer mooy li li xewoon Sandaga te ñu réglé ko Sandaga sax gis nga ñu ngi ñëwaat. ñu ngi ñëwaat waaw. gis ngeen ni ñu ko nettoyé woon. bi rek ñu ngi ñëwaat. Euh, piste bi waaw man dama ragal nag est-ce que du bi comme soriwoo est-ce que ñu fa dégg ñu ni ñoom ñoom amuñu fu ñu jëm bon en tout cas c'est le domaine de la mairie bon man c'est vrai que je les pas interpellés mais ñu ngi foofu tous les jours. ñu ngi gis euh, ñu ngi koy gis war nañu xam li fa nekk. Euh, mariam bi de piste bi de ah, bi doyen doyen na ko fi ba sonn waaye dina ko jàmbataat ndax dinañ leen yëkkatiwaat. waaw piste bi ils sont revenus les mécaniciens.